sant yàlla julli ci sangu sang yi seydul ujoot yeesal sama kóoluteef ci sama sëriñ Cheikh Ahmadou Bamba waaye nuyu suma rak suma xarit Ablaye Daouda Diallo ministre de finance du budget ak ñi mu àndal ñépp liggéey bi directeur yi duma leen citer euh, ci li nga xam ne andi nañ ko ak euh, ministre en charge des relation yi ak euh, institution yi mais ma sant suma groupe parlementaire d'abord sant groupe de l'opposition après sant président Ablaye Wade ndax moo ma jëkk yóbbu parlement CEDEAO j'étais premier suppléant ni ko Cheikh Seck waxe remplacé Cheikh bu Fall après Bamako moom ak Kumba Ba ñoo ma fekk hôpital ma tëdd ñu andil ma samay document yàlla dogal bi ñuy dem Abuja mënumaa dem ñu dellu si quelques mois ñu di dissoudre assemblée nationale man reveniruma ci législature boobu assemblée moo tax delluwuma mais 2007 sama xarit suma président nekk président de l'Assemblée nationale désigné ma ma bokk ci délégation bi 2007 avec Macky Sall président de l'Assemblée nationale yàlla def 2009 su ma baay su ma xarit Ablaye Wade dàq ma 2009 lañ ma dàq dàq ma février fii dàq ma mai Abuja xeex bu metti ma def fa discours bu rëy ni leen maa ngi dellusi loolu moo tax ñu plébiscité ma comme troisième vice président bi ma dellusee 2012 may dem ñu waajal ma fii groupe parlementaire yi président de la république président de l'assemblée nationale gunge ma trois motions lañ ma fale man lañ ko jëkk a defal gëmatuma ne keneen dina ko am parce que nag ndaw rabin ji des na ndax waa Sierra Leone ngi ñëw ah gars yi nee naa leen waaj leen rek mais defe naa ne du ngeen am président bu mel ne man moom mënul ne parce que yëf yi du ay diplôme diplomatie la loolooy xam nañ lool damaa am suma galgali bopp mbooloo muñ ma jox danaa leen takk li may wax ñu koy wax te du ma xeex ñoom tàng naa mais du xeex di chambre de commerce ministre baa ngi nii 60 millions de budget man Sénégal man rek maa ko fi yor dawal daaw ba mu jeex dese quarante quelques million ñoom ñu jël ko jël trésor man leen indi leen waaye suma yëf chambre yi am un milliard mënuñoo def seen problème man ma def li ma war a def desal nañ koy wax man damay def di desal moo tax ma ñemee audit leen ma audit leen ma fii boo nee nañ audit assemblée gars yi ni ah daa compte nga ni audit dañu war a xool lu ñu dénk nit kan lañ ko jox nuñ ko defee man audit nañ ma ñaari audit 2018 cabinet allemand ñoo ko def xam nga lu ñu gis président bërki démb la may wax ñu ma ne ma conférence des chefs d'État nee nañ sa président bi daa jënd Mercedes s cinquante bu cher ma ni ko bi ma ñëwee dama ni leen bu mel ne bu président de la république yi ak président commission yi ak oto bu ñu may escorté 4-4 Prado pour samay alkaati yi ak jëndal ma 4 Camry pour samay vice président la ngeen may jëkk a defal président ni ma dañu nee nañ dañu ko cher man leen laaj leen ñu ko jënd man du ma jënd damay wax li ma bëgg rek ñu def ko ñay jeex nag nañ jeex ndax noonu la kuréel giy doxee la ma liggéey jant la bu fenk ñépp a ko wax gannaaw wax nañ ko tàccu ma fal ma tàccuyaat ma may remercier député yi ma àndal ñoom Ibrahima Baba Sall Ndoye ñoom ñi leen lamin Thiam ñi fi jiitoon ñoom ñoo jëkk a def motion ni nañu ñu tàccul président groupe yi defaat tàccu pour ma dem maa ne nañ dem defi réunion d'évaluation boo xam ne dañuy xool li ma def lu ci baax ak lu ci baaxul yore lu ma kenn un dollar ndax mosuma laal xaalis du ma gérer man damay autoriser rek ndax damaa délégué sama pouvoir loolu dafa war a leer loolu dama ko ci dugal pour delloo leen njukkal am na lu ma waxoon dootuma ko wax wutatuma post fii vice président gi bu ngeen ko bëggee seet leen kenn ma jox leen ko suba li ngeen ma defal mën nañ ko quatre fois euh, ñu fal def ma parlement CEDEAO dama leen a gën bi ñu ñëwee ba léegi vice président premier deuxième Macky Sall jërëjëf dama doon bëgg a sant rek sant naa leen sant président Macky Sall te ànd ak yéen voilà